alors euh, d'abord soo xoolee suma carrière man bi may dugg administration xale bu tuuti la ma def dix 17 ans ci douane def concours IGE ñu nome ma quelque jour après ñu nommé ma directeur général douane ma def fay réforme de 2000 à 2004 réforme yu am solo ci wàllu informatique ci wàllu euh, gestion des procédures douanières transparence ak yëpp 4 ans mais réforme yooyu ma def dafa attirer attention pays africains yu bare parce que xalaatuñu woon ñu ci bare que mën nañu rapidement passer au scanning des produits man maa ko fi indi xalaatuñu woon ne la question de la corruption de la lutte contre la corruption allait être posée de façon aussi crue avec des mesures xalaatuñu woon que le système informatique yaa ngi fàttaliku l'an 2000 nit ñi di wax dafa am bug général et tout <coughs> comment on l'a traversé xalaatuñu woon ne peut-être euh, le système électronique Orbus pour collecter les documents mën nañ ko développer yooyu yëpp ma defar ko ça a attiré beaucoup l'attention euh, des pays africains bi ma génnee douane ma dellu IGE liggéey fa pendant deux ans et demi le temps de faire ma et tout et c'est à partir de 2006 que j'ai pris la disponibilité depuis 2006 l'essentiel de mon travail je le fais à l'étranger boo gisee affaire u Bénin bi siiw parce que simplement ni ñu ma nommé la dañu def candidature ut ay étrangers ci ay post yu bare la y avait des Rwandais et tout on était cinq après y yu trois ñu sélectionné ma mais bi ñu ma sélectionné le président Talon dafa ne pour que man réforme yi ma def te ñu soxla ko ma mën ko implémenter de façon euh, vraiment sûre il faut que ma am une position d'autorité dans l'administration moo tax mu changé texte yi malgré le fait que étranger la awma nationalité béninoise ñu nommé ma directeur général adjoint pour les réformes yi ma def pour man c'est pas le Sénégal c'est l'Afrique qui a besoin des compétences en 2012 quand il y a eu la crise bi ñu génnee ci crise su Côte d'Ivoire bi je suis allé là-bas j'ai proposé toutes les réformes et qui ont été mises en place après dix ans de crise J'ai au Congo, Brazzaville, j'ai été dans beaucoup de pays, en Guinée-Bissau, j'ai mis des équipes, etc. Donc, pour moi, travailler ici ou là-bas, c'est pas un problème de bàyyi sa dëkk man li ma war a defar sama dëkk defar naa ko la preuve bi ma demee ba def suma avocat ba nekk am suma cabinet toog dañ ma soxla 2009 ñu woo ma ne ma on a besoin de toi pour nga dellu si ci administration bi pour occuper les fonctions de secrétaire général de ministère boobu mënoon naa ne non jete en disponibilité j'avais le droit mënoon naa démissionner mënoon naa ne ça m'intéresse pas mais malgré les inconvénients yi mu amoon yëpp ci man dama bàyyi dama tëj sama cabinet j'ai fait trois ans et pourtant dama leen waxoon ne un an lay def su ma defee un an je vous aide à installer le ministère et tout après ma dem mais bi ñu defee un an ba pare y le problème de l'énergie bi ñu indee énergie ñu war a liggéey plan tàkkal j'étais obligé de rester deuxième année troisième année ñu jëm ci élection législative élection présidentielle mais les gens qui étaient au ministère ñu ci bari c'était des hommes politiques nous comme on n'était pas dans la politique on est resté et moo tax avant même élection yi di jeex laa def demande pour retourner dans le privé à partir de juin deux mille dix-neuf eh, mais mais Boubacar bu nekkoon ne da nekk euh, une bon les compétences sont universelles et puis vous servez aussi un pays africain euh, c'est toujours l'Afrique qui qui qui mais bu fekkoon ne Sénégal dalaa soxlawul sax man ma wax mais munoo ne Sénégal soxlawuñ la parce que Macky Sall yàgg na la proposer des schémas de collaboration nanguwuloo ko proposer na la des schémas de collaboration avec des post beaucoup plus importants nanguwuloo ko nga bàyyi fi réew mi nga dem benn xaarale nga dem beneen di leen servir muy benn beneen bi pour quelqu'un qui aspire à diriger ce ce pays là est-ce que jaaduwul est-ce que du du du du woonu yoon nga toog ci réew mi di suuxat réew mi ni ko sa yeneen morom yi di defee ñoom Abdourahmane Diouf mën nañ dem servir à l'extérieur ñoom Thierno Alassane Sall ñoom di Déthié Fall ñoom Ousmane Sonko mais dañoo nekk ci réew mi di bokk ak sénégalais yi seen i jàmbat di bokk ak sénégalais yi métit yi di liggéey dans leur domaine respectif pour faire avancer les les les les, les choses c'est un peu ce qui ce, gêne dans cette nomination euh, alors au Bénin je pense que yaa ngi glissé sur un jugement de valeur politique et je vais te répondre sur le terrain politique man je n'ai jamais accepté et je l'assume de prendre un poste politique avec Abdoulaye Wade je n'ai jamais accepté de prendre un poste politique avec Macky Sall parce que bokkuñu vision politique c'est ça la raison c'est pas que je ne veux pas servir mon pays je ne veux pas prendre une position politique pour assumer des politiques publiques yoo xam ne gëwma ko donc la casquette bi may wax servir le pays c'est la casquette de l'administrateur qui servait son pays et à partir de 2012 je suis allé dans le privé un choix parce que dama am carrière boo xam ne dafa am yu ci manqué woon l'industrie c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. fa nga doon servir ministère euh, des infrastructures en tant que secretaire général du du, ministère vous étiez dans un régime ça veut dire que doon da nga da nga woon la vision. politique non, économique d'Abdoulaye Wade moo tax ma ne yaa ngi def glissement politique. quand tu es secrétaire général d'un ministère j'y étais comme. inspecteur général d'état détaché bi ma jógee avocat Paris dama révoqué sama disponibilité bi ma ko révoqué ñu détaché au niveau du ministère comme inspecteur général d'état tu n'as même pas le droit de faire la politique donc li ma occupé foofu c'est une fonction administrative qui a un périmètre déterminé qui n'a rien à voir avec la politique et g comme ministre plus de cinq ministres et ministres délégués ça n'a rien à voir c'est un débat qui a été soulevé à un moment donné pour essayer de me mettre en mal. Mais vous auriez pu, avec non, des arrangements non, non, aussi, euh, accepter d'occuper un poste pour servir le pays. Non, non, non, attendez, qui ne sera pas forcément un politique. je suis en train de vous expliquer. À partir de j'ai pris une disponibilité, j'ai fait une expérience privée avec Sokosim, j'ai fait une expérience privée avec un groupe pour l'énergie solaire, j'ai une expérience privée avec un groupe qui était dans les inspections avant expédition donc j'ai étoffé mes connaissances parce que moi j'ai un projet politique transformer le Sénégal te xam-xam moo yor réew 2012 ba 2015 quand je suis arrivé en 2015 j'ai dit maintenant je quitte l'administration totalement donc on ne peut plus occuper une position d'administrateur dama def retraite anticipée de huit ans donc je suis devenu un privé comme les autres c'est comme si tu rencontrais un privé et tu lui dis pourquoi tu veux pas servir ton pays quelle est ton activité pourquoi tu n'acceptes pas un poste de Macky ou bien ça n'a aucun sens je pense que c'est un débat non waxuma accepter attendez, un poste de Macky a eu je vous dis je ne collabore pas avec un régime dont je ne suis pas d'accord avec les politiques publiques c'est clair je l'accepte pas sur le principe c'est pour ça que j'ai refusé tout ce qu'on m'a proposé sur ce plan-là c'est clair donc 2015 je suis libre je suis je suis j'ai choisi maintenant mon travail pendant depuis 2015 je bosse j'ai bossé j'ai commencé à faire mouvement politique j'ai commencé un social Génération Y ensuite je suis entré en politique en 2018 moi pour moi la politique c'est pas un métier je travaille moi je vis de la sueur de mon travail c'est ma conception mais bu ñu la nanguloon la le poste de premier ministre que. Donc... non mais moi tu sais bien que moi je ne prends pas de poste je te dis je ne prends politique sans épouser le schéma politique man premier ministre ak planton la yemale man conception lay doxal man li may doxal c'est un principe il faut que cette affaire là c'est bien que tu que vous parce que c'est très important donc 2018. ma dugg ma ma dugal ci waxu premier ministre parce que à un moment donné on a dit que am na lu ñu la proposé mais yow da nga ne da nga bëgg a jël la primature pour imprimer euh, euh, votre vision. non non c'est pas vrai c'est pas je, vous dis c'est après Macky Sall n'a pas accepté. non non c'est pas vrai du tout. absolument faux quand j'ai rencontré Macky il m'a jamais proposé de post il m'a décliné et on en avait parlé ici je pense que c'était notre dernière non, émission il m'avait décliné là. attendez il m'a décliné tout un processus je lui dis monsieur ce que vous dites là c'est très bien mais on n'a pas le même cap et toutes les prévisions que j'avais faites se sont avérées aujourd'hui dëkk bi narmeelu ça c'est le passé ça c'est des fabrications pour essayer de discréditer un peu une candidature donc je vous dis professionnellement je suis libre d'aller gagner ma